Nous avons ay point de référendum que notre collègue Mbéri Sylla l'a soulevé concernant les élections concernant l'opposition je pense que nous nous faire des ci réformes Les réformes yi nag dafa toucher le le secteur électoral Non la koy parce que nous avons un pléthore de partis Il faut que nous ayons des partis teg élections. dem lolou ken mu demone na ba ingérable man que ngeen ñew ni ko le 22 au plus tard le 27 février man bu doon sama sago le temps qu'il faut liggéey ko correctement ba ku faloti bo ñëwé da ngay jublu ci liggéey mais dans nekk di politique pour ay élection Dès que ko fi wax sànq ne euh, dañu waroon dem 2021 dem 2022 dem 2024 xanaa bon réew mi trois ans yooyu yëpp dafay dëkk ci politique

trois siècles à instaurer une démocratie y a eu une vers les années 80. France on a une une référence vous wut une référence en matière de démocratie donc au niveau régional ou bien au niveau sous-régional qui a nga qu'il réalité même en parlant de l'emploi et des économies qu'est-ce qui s'est passé avec les économies avec la Covid mais on a vu que toutes les économies même au niveau international se sont effondrées mais l'Union européenne, tout, mooy les causes qui ont fait que ci diir bu gàtt bobu économie yooyu yëpp mën a tëdd am lool na nit ñi saytu wax ko ci Sénégal fi li ma ciy wax ba ba ñu ñëwee gis ne économie bi amna nu mu soxé mais amna ay mesures ni suñu président jël tey jii boo même au niveau de la zone y ni am programme de relance économique post Covid wul on y a travaillé la semaine dernière ça fait deux semaines on était avec les huit pays de l'UEMOA donc nous avons avancé pour boo xamante ne Sénégal Sénégal miroir au niveau de la sous-région Donc, même li xew nous koy déploré la dernière fois nous avons dit que leen ñu Sénégal boy vous êtes notre miroir donc nous, nous nous sommes doyul France est une référence Amérique est une référence eux qui ont fait des siècles pour instaurer leur démocratie et le parfait nous on est en nous ñu toll si suñuy début mais yow Sénégal la là, waxal lu jëriñ Sénégal buñ la woowee si dialogue demal dialogue te nag bul gedd ndax nit ko loo bokk bokk ca wàccaase du doo ko gedd boo demee da ngay taxaw défendre say position wax ba li ngay wax koo convaincre ñi nga xamante ne moom nga ko seqal ñu mën la dégg loolu mën a loolu mën a yegg bu ñu jëmee ci wàllu euh, bu ñu jëmee ci wàllu euh, délégation spéciale daal di dégg ñu naan depuis 2019 dañu waroon def ay délégation spéciale mais yow am na ñoo xamante ne ni on les a élus kenn tegu leen fi dañ leen a élu xëy na la seen euh, mandat war na jeex ñu war leen a remplacer ñu am ay réformes ñu teg réforme yoo xamante ne yéen a ko laaj bi ñu génnee 2019 ngeen ne ñu def audit fichier électoral processus électoral bi ñu war ko seetaat nga ñëw joxe délai nga ëlbatikuwaat bëgg a wàññi délai bi man xam nga li ma wax gis nga ni booy liggéey buy seet ki nga xamante ne yow lii see ak réalité du benn. koo xamante ne yow yaa ngi liggéey ñuy yuuxu loo mënta defi dañuy yuuxu la nga war a def te muy njëriñu Sénégal da nga cay taxaw def ko ba mu mën sëg te bu ci déglu kenn man sama yi loolu la. te bu doon sama sago date bu gàtt bi ngeen def ngeen yokk ko ba jël seen temps mûrir réforme bi ba nga xamante ne buñ fi jógatee lépp lu ñuy wax ci si élection kenn dootu dootu revenir ñu koy tegaat di ko di ko kii tegaat sur la table di koy discuter je vous remercie.